إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom gannaaw ba ñu seedee ne moom dong yeeyoo ñu jaamu gannaaw ba ñu seedee ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la bu ñu war a àndal jaamu yàlla yonent yàlla la ba ñu war a nangu ay ndigalam topp ko jamono jii suma mbokk yaa nga ca Makka ñenn ñi ñibbisi nañu am nañu fa des waaye nga xamee ni nii dafa dem Makka ay mbokkam dañ kontaan ci moom moom yi mu kontaan ka la mu def waaye mbokk jurit xam leen ni yàlla ma woote ca Makka day moo woote ci julli juróom te xam leen ne taxawal julli juróom day moo gën a màgg la nga xam ne mooy ak màgg foofu lislaam juróom la ba ca jiitu mooy seede ga ngay seede la ilaha illa allah muhammad rasulullah amma li ñuy jëf ak yàlla da ca gën a màgg moom mooy julli juróom mboolem li ñuy def ci lislaam yàlla daa yónni jibril alayhi salaam na ko demal ne muhammad na sant jaam yi ak moom ñu def nangam amma julli juróom daf na ko demal jële li ma muhammad mu ànd ak moom ñu dem ba fa soob yàlla yàlla dénkoo ko julli juróom loolee mbokk xam leen ni moom mooy ponk gi gën a ci li ñuy jëfal yàlla mooy différence entre jullit ak yéefar képp ko ngeen gis muy julli waxtu julli juróom jullit la képp ku dul julli waxtu julli juróom yéefar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diggante nit ki ak yéefar day jullee fa dox képp ko bàyyi julli day ab yéefar la ay yéen mbokk jullit xam leen ne julli boobu it dina doomu aadama bi da koy defe nam ko neexe waaye da koy defe nam neexe boroomam boroomam boobu moo yunni ab yonentam mu jàngal nit ñi julli mu ne julli leen ñi ngeen ma gis ngay julli mu war ci jullit bi mu jéem a jàng naka la ñuy julli muy góor ak jigéen luñ koy wax ak luñ koy defe waaye itamit ñu xam ne julli googee yàlla da ko wutal waxtu waa ji nga xam ne amul benn ngant mu nekk ca xew wa wala lamb ja wala bànneex bu ko nekk julliwul takkusaan ba jant bi so su jógoon julliwaat mil takkusaan mënul fay benn takkusaan ba nga xam ne da koo rëcc fokk ñu def ko ca waxtu wa waaye gannaaw ba it fokk ñu def ko ca mbooloo ma borom xam-xam yi am nañ juuyoo ci waaw waa ji dégg noddu dem war a julli gi lan mooy atteel ña ca gën a woyof mooy ñu ne sunnatul muakkada mooy sunna la bu ñuy teddali sunna bu ñuy teddali mooy lan mooy loo xam ne doo gis mukk jullit bu baax di ko bàyyi abadan am na ca ñoo xam ne dañu ne nekk na farata ci mbooloo bi dëkk bi bu mbooloo amee ñu dem ca jàkk ji julli loole day nekk lu lu leen doy waaye bu ñu toogee kenn julli jiwul ñoom ñëppay am bakkaar doonte na mbokk ñu gën a dëgër ay tegtal mooy ñi ne julli ji ca mbooloo ma day farata la farata la képp koo xam ne war ngaa julli ji julli ji woo am nga bakkaar doonte ne am na ñu ci gën a kawe sax ñoom ñoom dañ ne charte la diggante charte ak farata ñi jàpp ne charte la mooy ki julli jiwul ca mbooloo mu julli gëm julli këram baaxul amma ñu gën a digg doomu mooy ñi ne farata la ki julli jiwul ca mbooloo ma def na bàkkaar bu rëy boo xam ne bàyyi na ko bu ñu delloo ci tegtal yi ñu xoolaat yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gàddaayee dem Makka créé ko loolu ñuy tuddee cité état mu yor indépendance boppam lan la jëkk a ittewoo avant muy tabax këram nga dafa jëkk a ittewoo yëkkati jàkkaam ja sallallahu alayhi wa sallam daa di ut ab noddkat boo xam ne juróomi yoon ci bés bu nekk dana taxaw woote ne gaa yi gaa yi leen ñu daje julli loole itamit gis nañ ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam wëll ba ci ku ñaaxaate ca gën jaa màgg ci ñaaxaate daana wax ne ci bàyyi këram wala magasin wala service am dem bi li ca jàkka ja day yoonam gën naa màgg ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ka nga xam ne daa julli ca palaasam ba mu nekk gis nañu lenn ci waa Madina ñu leen di wax bani Salama ñoom seen kër daa sori woon jumaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ñu daal di lijjanti benn tàkk ci wetu jumaa ja ngir bëgg a tuxu si jege jàkka ji bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéegee mu ne leen ay yéen bani Salama tey ngeen toog ci seen kër googee di dox di ñëw ci jàkka ji ndax mboolem dox yooyu ngeen di dox ay yoon la ñu leen di bindal loolu it nekk benn mbir boo xam ne ngan la waay mbokk jullit yal na yàlla sàmm suñu benn mag muy Abdul Aziz Touré bokk na lu ñuy wax nee na kër gu gaaf mooy kër boo xam ne boo fa dëkkee doo dégg nodd bépp dëkk boo xam ne boo fa dëkkee doo mën a dox dem ca jàkka ja mu ne loolu rek mooy kër gu gaaf almuhim kon ku nekk fépp fooy dem di fa tuxu war ngaa xool ndax man fa ma jëm danaa ko mën a boole julli ji waxtu julli juróom sa jàkka jam ji benn góor ngi ci sahaaba yi ci waa ansoor bokkoon na ci ñi gënoon a sori fa ñuy jóge ngir ñëw ci jàkka yi lenn ci ay xaritam na ko waaw te ngaa jënd mbaam boo xam ne da nga koy war ndax naaj ba tàng di ngay dox mu ne leen déedéet damaa bëgg jéego yi may dox di ñëw ak jéego yi may dox di dellu yàlla bindal ma ko da ko yonent bi alayhi salaam yéegee na ko yàlla boole na la loolu lépp fépp ko jógee këram ñëw ci jàkka ci mboolem jéego yi muy def ba baa muy dugg ca jàkka ja mboolem jéego yi muy def ba baa muy dellu këram yooyu yëpp dañ ko koy boole bindal ca la yonent bi alayhi salaam jàng aaya ba yàlla wàcce ci suratu yaasin ne ñun day ñooy dekkal ñépp ñu dee woon daal di leen génneel seeni jëf waaye génneel leen fi ñu jaar ba jëf jëf ji te loolu ñu ngi noonu mboolem lu bon looy jëf yàlla dana li bindal jëf bi bindal la effort ya nga def ba jëf ko mboolem lu baax looy def yàlla dana ko bind bindal la effort ya nga def ba jëf ko ay yéen mbokk julit xam leen ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam day daañu bégal ci ne àllaaxira jee ñu jëm ki nar a texe mooy ka amul leer ba nga xamee ne nii sunu boroom heure bu dajalee yéefar ak naafiq yi ba teqale leen julit ña daan jiitu ñoom ak seenug leer seen naafiq yi daan leen woo ay waay xaar leen ñu leerlu ci seenug leer ñu ne leen dellu leen àdduna ngeen wuti fa leer suñ yonent bi alayhi salaam ne déggaleel ma ñi nga xam ne dañuy dox ci lëndëm yi jëm ca jàkka ja ci leer bu màgg boo xam ne ñu ngi leen di xaar yowmal qiyaama ay yéen mbokk jullit julli dem ca jàkka ji ñu julli ngal la way xam leen ne jóg di ko def fii day bokkoon na ci loo xam ne nit ñu baax ñu dañ ca daan diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne su jóge këram ñëw toog ci jàkka ji ngir xaar waxtu yu jot mu julli nee na ku mel nii day mi ngi boole dañ koy jàpp ne mi ngi julli même bu farankulaa wentee ay loxo dañuy jàpp ne mi ngi julli ba ba waxtu yu jot gannaaw ba malaaka yaa ngi koy ñaanal njéggalu yërmaande gannaaw ba bu paree même bu nibbiwul ñi ngi koy ñaanal njéggalu yërmaande lii mbokk ay ngëneel la yoo xam ne kenn du ko dégg ba pare di sàggane jullit mbooloo waaye boo xet ne mun yërmande yàlla nga la waay ngay ragal mbugalum yàlla yonent bi alayhi salatu wasalaam daana wax ne julli yi gën a par ci naafiq yi mooy jullit fajar ak jullit géej ndax seen jamono courant amul woon ki ñëw fajar ak ki ñëwul kenn xamu ko ki ñëw géey ak ki ñëwul kenn xamu ko loolu moo tax ba sax jigéenu saxaaba yi ngir lëndëm googee daaw ñu manqué julli fajar ak julli géey ca jàkka ja loolu la yonent bi alei salaam mu ne cay bu ñu xamoon li nekk ci ngëneelu dem julli ji fajar ca jàkka ja ak julli ji gee ca jàkka ja même bu doon am na ku ci feebar bay raam day dana raam ba ñuy julli si ci mbooloo mi mu teg ca ne man day ah mébatoon naa téemaa wax ñu noddal ma suñu noddee ba waxtu yu jot ma wax keneen jiiteel mbooloo mi kooku jiite moom ànd ak ay nit di dem di fëgg kër yu madina yi képp ku ma fekk nga toog sa kër ma taal kër gi ci sa kaw am na benn riwaaya bi imam ahmad solo day wax ne bu dul woon ak jigéen ñeeg ndaw ñi danaa def loolu ay danaa bàyyi ne nañ julli gannaaw ba mu wër kër yi ku ma fekk sa biir kër ma taal kër gi sa kaw loola tax abdullah ibn masud daana wax ay yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen di fonk julli ji sa jàkka ja xam ngeen ne loolu day ci sunna yonent bi gën a dëgër la bokk bis ba ngeen ko bàyyee bàyyi ngeen sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day sa jamono amuñu kenn ku ñu daan gis muy bàyyi julli mbooloo lu dul koo xam ne feebar na ba ñépp yëg feebaram wala koo xam ne naafiq la ñépp xam nañ ne daa naafiq mu ne maa ngi leen di seedeel ne day ci jamono yonent bi daana gis nit ñu lëngee ko këram mu nekk di jëli ay tànkam ñu ñëw ba taxawal ko ci sàpp bi ngir mu mën a jooxe loole nga xam ne moom mooy jullit moomam ay yow mbokk julit góor góor lul di jéem a bàyyi say nelaw ngir jóg taxaw la nga xam ne mooy jullit mbooloo rawatina di ko julli ji ca jàkka ja loole dana lay doonu lay sawarloo xam leen ne bokk na ci musiba yi gën a rëy bu doomu aadama ji def mooy fexe ba sàggee ni julli ba waxtu borom bu ko ca loole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ma yàlla yón yóbboo ci kaw asamaan yi won na ma sama xeet bi li ñuy dund ci barzaq mu ne won nañ ma benn góor boo xam ne am na ku ko tiim bu dóoree bopp bi ci benn xeer mu daal di tëb xar ñaar xeer bi dem fële bi mu jógee di jigi xeer bi bu ñëwee fekk yàlla defaraat na bopp bi mu mel na meloon mu dóoraat ko bopp bi tas ñaar xeer bi dem fële buy jigi xeer bi yàlla delloo bopp bi ma ne waaw jibril kii moom lu mu def mu ne ko kii moo ñuy nekkoon sa xeet di nelaw ci waxtu farata dañu noonu waxtu farata ñu sagg na ko ba waxtu yi paase julli wuñ ko gana way mbokk bàyyi na xel loolu suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi tagg ay góor yoo xam ne nee na ñoom day commerce bu dox njaay moo xam ne ñii bénéfice baa ngay dugg du dox mukk seen diggante ñu jóg di taxawal julli du dox mukk seen diggante lañ am ca alal bi ca gën a zakkaat lu waral loolu ndax ñoo ngi ragal bis boo xam ne ñu ngi ñëw xol yi daan tiit bët yi daan ubbeeku balaa kenn xam foo jëm mbokk julli mi ngi noonu julli mbooloo mi ngi noonu ngan la way xam leen ne yow ñi nga xam ne yaay commerçant bi ak sa commerce lu mu dox dox nga dégg xayu ala sola nga dégg magasin bi dem julli ji suñu borom mu ne zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun loolu mooy li gën ci yéen bu doon xam ngeen su dee maa ngi wax ak commerçant bi client yi wër intérêt taxaw waxuma kay tëdd di naan ataaya wala kay di seetaan film wala kay di seetaan ay sport nga la way julit xamal ne lépp loo xam ne yaa nga ca nga dégg noddukat bi ne allahu akbar mi ngi lay fàttali ne saawaay li ngay nekk day lu mu am am njëriñ allahu akbar yàlla ko gën a màgg ca allahu akbar boobu mi ngi lay wax xayu ala sala kaay julli xëy alal falaa kaay ci jaxe bi heure boo xamee ne wuy jiwoo loolu xamal ne perte ba lay texe ci julit mooy heure bu déggee nodd lu mënoon a jàpp mu bàyyi ko wuy ci nodd googu mbokk góorgóorlu leen ci loolu dénk leen ko la nga xam ne mooy seenum njaboot képp koo xamee ne nii yor nga njaboot suñu borom mu ne dégg leen digal leen leen ñu julli wërsëg bi maa ko yor may wërsëgal ca mbokk julit li gën a sonal nitu tey mooy nu ñuy def ba njaboot bi réussir nu ñuy def ba njàngi mi normal fu ñu leen di dugal ci liggéey na am loolu ware ko loolu lu baax la waaye du priorité de lay priorité yow fexeel ba njaboot boogee fonk waxtu julli juróom maa ngi lay seedeel ne yàlla du leen seetaan abadan wërsëg ci loxo yàlla la def gannaaw ba it maa ngi lay bëggal ci ne bépp mbaax boo bëgg njaboot ga am ko ëllëg xamal na yoon ba mooy fexeel ñu saxal julli juróom suñu borom nee ne julli day day dox diggante bépp ñaaw jëf ak lépp lu bon ca loolu day ëmb diine lépp képp koo xam mi ngi taxawal julli normal yàlla dana ko musal ca bakkaar yu garaaw yi njaaloo yaag agression yaag naan sangara yaag yeneen waaye yàlla dana ko musal ci sàggane farata ya la nga xam ne mooy zakkaat yaag ak makka yaag def lu baax ndax suñu borom mu ne inna salaata tanha anil fahshai wal munkar ay yéen mbokk julit xam leen ni fële ñu jëm ci àllaaxira la ñu fay xaar mooy benn acte bu mag suñu borom yàlla sant ay malaakaam ñu escorté ñu kenn par kenn di ñu jugé suñu yonent bi alayhi salaam ne li ñuy jëkk a indi mooy say julli bu dee julli yi xool nañ ko baax na ñu accepté ko nangu ko sa mbooli mi jëf dañ koy jëkkati rek nangu ko ne lépp baax na amma bu ñu xoolee julli gi baaxul sa mbooli mi jëf la ñuy vérifié te képp ku ñuy xool sa mbooli mi jëf da nga doon koo xam ne nii ko alko nga looloo tax ba bu leen yem ci julli waaye dee leen ko defe ca mbooloo ma bal ca mbooloo ma sax dee leen jëkkante ci biir mbooloo ma ca mooy di teel a jóg di dem ca jàkka ja ngi ne ngeen toog ca premier sappe ba te loolu it mooy la nga xam ne mooy ngëneel ba teel a jóge sa kër ñëw ca premier sappe loolu la gannaaw ba itamit mbokk julit xam leen ne yonent bi alei salaam daan wax naan wallahi nit ñi bu ñu xamoon ci li nga xam ne mooy taxaw di nodd bu ñu xamoon li nekk ci taxaw premier sappe kon doon nga gis doomu aadama yi doon ñoo xam ne dañuy daje ci jàkka ji di lottari kii naan maa jiitu kii naan maa jiitu ba dañuy lottari pour xool ñoom ñooy taxaw ci biir jàkka jooje mbokk jurit njàng leen yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam wallahi am nañu suñu benn mbokk bu ñuy wax Muhammad Taal yàlla yàlla dund ko yiw bokk na dëkk na ku sori fële ca Kër Masaar xemmeem gum xemmee moon suñu jàkka ji daanaka fii la daan ñëw di itikaaf weeru koor te macha allah benn ndaw la boo xam ne fu ñu li dugg ci àdduna bi mu ne dafa yàlla dafa jaayante daal ak boppam ci ne daal du jullee lu dul premier sappe du jullee lu dul premier sappe lu lay may loolu mooy di teel a jóg nee na yàlla natt ko mu dem dëkk ci Maroc dëkk bu ñuy wax tonton nee na dëkk boobu musul gis waa dëkk bu dale loolu ba amee yërmaane loolu mais nee na waxtu julli ga nee na bi ma déggee noddukat bi nodd ma wàcc sama chambre d'hôtel ñëw fekk premier deuxième sapp yëpp fees na ma ne bisimilah jàmm te mooy kon julliwu premier sappe nee na beneen jour bi ma toogee ba dégg xam ne daal léegi ñu war a nodd nee na ma daal di wàcc sama chambre d'hôtel mais nee na bi mu ñëwee fekk ibbi nañ noddukat baa ngi ne ba ibbi nañ jàkka ci premier sappe fees na ma ne waa léegi lu war a lii nee na ma ne baax na troisième jour ba biñ ñëwee deux heures la ñuy julli une heure demi mu jóge sama kër mais nee na bi ma ñëwee ma fekk benn rang ci buntu jàkka ci ma ne ñu ngi ñu rang ñu ne dañuy rang pour taxaw premier sappe nga tax gars yi mas leen gis lu mel nii dañuy rang pour taxaw premier sappe avant noddukat bi dugg bi jàkka ji rang bi dem na ba fële pour léegi bu ubbee rek nit ñi dugg taxaw premier sappe ngir dégg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ndax yonent bi nee na buñ ko xamoon kenn du ko bàyyi sa morom maa ngi leen jox benn misaal rek bu doon dañ ni ñu ngi julli képp ko taxaw premier sàppe booy dem ñu jox la cent mille francs moo gars yi rek bi ndax du yegg marché police ah kay sa su ko defee kon mbokk nañ góorgóorlu ci julli julli gii day mooy suñu garanti ci diine moo ñuy aaral suñu diine mooy li gën a màgg li ñuy jegeel suñu borom mooy li gën a màgg luy naatal suñu dëkk mooy li gën a màgg luy naatal kër yi mooy li gën a màgg ci la nga xam ne mooy indi jàmm ak tawfeex ci njaboot yi bàmmeel gee ñu jëm amuñu lenn luñ fa mën a wétti nga mën koo leeral lu toll ni julli allaaxira gee ñu jëm ca sunu kanamu borom amul lenn luñ fa mën a teeru lu toll ne la nga xam ne moom mooy julli rawatina nag julli goo xam ne dañ koo def ca mbooloo ma mbokk julli mbooloo la ca nekk ci ngëneel bari na yaa ngi jóge sa kër ñëw ci néegu bi yàlla di ñaan sa borom yaa ngi jóge sa kër dañu fi jaamu yàlla yu baax yi ana ñaata nit tey ñoo bëggante mel ne doom yi lay te wallaahi jàkka ji rek moo tax ñu xamante bu dul woon jàkka ji ñu xamante ñaata la jur relation yooyu ci ay intérêt adduna ci ay sëy sax ci ay yeneen ak yeneen gannaaw loolu mbokk bi jullit ñoo ngi di daje ñaata projet la ñuy mën a def ci islam ba mën a ne doom ñu jàppalante rawatina mbokk jullit mbooloo boobu lan la mën a def ci suuxat njàngaleem islam tey ji ñu ngi ñëw dañ ñëw julli ji àjjuma tey imam mi ngi ñëw di xutba waaye gannaaw loolu itamit jàkk boo xam ne dañ koo teg ci sunna fekk war naa am am njàngale njàngale moo xam ne ñëpp ci war a gis seen bopp fa lilahi hamdu xale yaa ngi fii nekk ci daara ji di jàng ñi seen doom yi di wëngiru ci vacances yi bu ñëwee fi ñu jàngal leen yéen nag ñu góor ñi suñu mbokk Ibrahima Sarr mi ngi ñëw fii di joxe ay jàngale yoo xam ne ci ñu musul jàngal Quran sax ñu leen di jàngal la nga xamee ni ni moom mooy jigéen ñi suñu mbokk ñoom jëlee si seen ñu ngi fii deux fois par semaine di fi jàngale la nga xam ne mooy jigéen ñi ca laaju ñu leen ci dara bokk la yeneen dar fii fii am mbokk lii lépp mi ngi jóge ci barkeb julli mbooloo ndax cosaan mooy tabax jàkk ngir julli mbooloo waaye lii lépp barke bu julli mbooloo am ca lañu suñu borom yàlla di defal lépp moo tax ñu dem ci bàyyi salaatu salaam amuloon université amuloon ay faculté amuloon ay dara lépp ci formation sahabatul kiram ñi jiite woon presque genn wàllu adduna bi ma nga jóge woon ca jàkkaam bi tedd joojee yal na yàlla dëpp la suñu jàkk ak i jàkkaam yal na yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy julli fonk julli mbooloo yal na yàlla boole ci la nga xam ne mooy suñu njaboot yal na julli leeralal ñu suñu mbir adduna ak alaxira yal na suñu julli yëkkati ñu daraje gën a kawe ci ka suñu kanamu borom yal na yàlla boole ci suñuy xol yal na yàlla gën na ñi ci indil ak jàppalante adduna ak alaxira allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin